ñu ngi tëdd bitim réew. faatu mu leer na leen ne ñooñu li leen yóbbu mooy ngor jom bëgg a soppi seen façon dundin waaye ñi si ëpp si ñoom boo leen déggee euh, dimbali samay waajur dimbali samay waajur la ñuy wax nga xam ne ne pour man jom ak ngor weesuwul foofu hmm. te ndaw bu demee ba tekki jaral ko ba kenam rek kooku je pense que ne approche bi ñu war a am ci moom war na utee ak ndaw bi nga xam ne dafa toog di gens di drogué wu di agressé di sàcc di noonu kële war nañ ko gën a jàpp war nañ ko gën a mën a encadrer waaye war nañ ko gën a mën a euh, cest à sunu borom xam-xam yi les les les les les psychologues sénégalais war nañ gën a toog ñu waxtaan seen biir. phénomène bi phénomène bi le vrai problème c'est quoi exactement parce que ñu bëri dañ defe ne ne immigration clandestine léegi la du léegi de man dama am chance euh, zone yooyu dama ko miin Tenerife Fuerteventura Lanzarote ga les îles Canarias dama ko miin parce que euh, dans le cadre du sport mën naa ne club yi nekk foofu yëpp bu ñu soxlaa jour daanaka jour yi nekk sénégalais yi nekk foofu en Espagne surtout zone boobu euh, li ma fi yóbbu bari na bari na. ah waaw donc boo xool euh, zone boobu euh, mën naa ne ces dix dernières années bu ma fa yóbbul tamit une trentaine de jours yóbbu naa fi une cinquantaine. Ah waaw donc maîtriser naa ko mais li ma ci yéem mooy felo bi. dafa am fu ñuy wax Tenerife première fois ma dem fa li ma njëkk a yéem mooy loolu <laughs> te du léegi ah. ça fait des mooy mooy mooy mooy effet immigration bi te du du du du jamono yi ah ça fait ça fait vraiment des années et des années en arrière ma gis ay jeunes sénégalais ñuy wax sénégalais ma gis ci booru plage bi. mais ci année 2000 la. waaw ci année 2000 yi Barça ou Barça ci année 2000 ci année la. Mhm. mais non ci année 2000 yi la commencé siw mais man bi ma demee ba ci biir j'ai rencontré des vieux sénégalais. Mhm. mais man toog naa ab benn pas sénégalais boo xam ne il a fait plus de trente ans en Espagne. Mhm. mu ne sama doom ñun si gaal gi lañ jaar. il a fait plus de trente ans en Espagne il a la nationalité espagnole ak ay njabootam. te ci la jaar te ci gaal la jaar. mais boobu ay benn benn la woon. bokkul ak vague bi non xam nga je tout à fait d'accord mais dafa am xam nga lu ne. dafa am fu muy cosaanoo xam nga bu kenn demul woon jàll ba ba ba ba ba ba Christophe Colomb bu buñ ne moo découvrir euh, découvrirul dara. non c'est <laughs> une façon mais dama ne la moom la Amérique découvrir mais du moom moo. waaw d'accord mais dama leen. am na fii wax nañ ko fii nee nañ bu njëkk. Mhm. nappkat yi am na ñoo xamante ni bu géej gi xawee dal ni amul jën nii wala ñu nekk ci saison de repos repos dañuy jël gaal dem witt fële ci tool yi ay Espagne benn saison la. mais après dellu si waat xam nga tey boo yooyu boo leen gisee foofu ak condition yi ñu doon nekkee nga waxtaan ak ñoom regret bi ñuy njëkk am regret bi boo waxtaan ak ñoom regret bi njëkk am mooy lu tax ñu def risque bi jóge Sénégal ñëw ba fii. risque boobu noonu te seen bakken mënoon ci des. seen bakken mënoon ci des te attente yi ñu doon xaar ci dëkk boobu. amut. da ñëw gis ci plage bi gis nga fu mu nekk nii boo demee ci dans les îles Canaries da dem gis ay sénégalais xam nga la lan lañ lay laal 5 euros mooy 3500. pour jënd lu ñu lekk. pour jënd lu ñu lekk parce que mënuñu liggéey te euh, l'état espagnol dafa teg ay nouvelles lois pour gën a corser pour pour pour pour dissuader pour dissuader les les les les immigrants ba nga xam ne ne yow bu fekkee ne da nga jaar ci gaal gi amoo sa passeport amul tampon. mu leer na leen ne yow ci gaal nga jaar procédure yi nga war a jaar pour rég pour ñu régulariser la ce sont des procédures extrêmement difficiles léegi entreprise yi nga xam ne ne bu njëkk ñoom leen ñoo leen daan jël dans le noir di leen liggéeyloo parce que boobu problème main d'œuvre dafa amoon entreprise yooyu léegi entreprise buñ ci jàpp nga liggéeyloo benn migrant benn laa la wax mën nañ si tëj sa entreprise parce que loolu un les les les ONG occidentaux ñoom ñoo ko xeex du coup booy yi bu ñu demee foofu la mooy problème bi mooy seen mbokk yi nga xam ne ñoom lañ xam foofu ndeysaan bu ñu woowee seen mbokk yi seen mbokk yi am na si ñoo xam ne dañ leen naan ñëwal mais sa mbokk tey bu la nee ñëwal nga nekk dans les îles bu fekkee ne yow amoo visa bu valide bu nekk en règle lenn nga mën a def. tappale ci ay kayitu jàmbur jaar ci bato yi jaar ci jaaraat jëlaat ci îles yi à partir des îles am na ay genre bato yu ay bato hmm, yu ay chaloupe quoi yu yem pas ay chaloupe sax ay bato de croisière yu yem yooyu nga mën a jël pour mën a dem par exemple lu mel ni Madrid ou bien pour nga mën a dem euh, ci yeneen grande ville yi nga xam ne ne du nekkatul ay îles léegi booy yi ils sont obligés d'être dans les îles di tourner ci île yi parce que mënuñu. dem ci grande ville mënuñu non seulement mënuñu dem ci grande ville yi mënuñu dem France mënuñu dem Italie mënuñu dem léegi nag beneen problème bi bi muy gën a indi mooy les communes les maire des commune dañuy ñoom tamit teg pression ci ministre de l'intérieur teg pression ministre de l'intérieur teg pression ci état bi ba léegi ay cas de concentration lañ leen di jël. dugal leen foofu. bu ñu xëyee ñu jox leen euh, benn banaana benn pomme benn orange jox leen benn kii def leen nii après ñuy xool naka la ñuy defee tri ñiy génn ñeneen ñi nga gis ndeysaan da gis ay boy yoo xam ne dañuy bàyyi bu guddi ñi jël mooy dara dara yi ñuy fanaan ñu takkale dara yi comme ay prisonnier voilà mhm. daal di jaar ci ginnaaw tëb barbale bi waaw barbale boo nekkee sportif dëgg nga daal di tëb nga daw mhm. bu ñu dawee jéem a xool lu ñuy def après nekk jël ay këtu jàmbur jéem a takkale dara dara mais euh, jàmbaar booy yi dañoo nekk si booy yi nga xam ne dañoo nekk foofu man bu ma doon état ce que j'allais faire mooy def ay reportage c'est-à-dire état bi. Euh, def ay reportage pour. non dem sur place. pour wane li fa am. est-ce que loolu mooy solution boo demee bay wane li fa am nga fexe ñoom ñu toog fii. non mais xaaral ma wax la xam nga tey booy yi man damay waxtaan ay jeunes yu bari ah parce que j'ai mon association boo xam ne ne ci volet boobu du ci yëngatu damay waxtaan ay jeunes yu bari mais ñoom lu ñu lay wax. naan grand yow saa su ne yaa ngi tukki foofu bu naqari woon da doo doo fa dem ma ne man dew ma pour toog te am naa ay kayit bokkul ak ki nga xam ne dafa nekk ci dëkk tubaab te amul kayit mais yéen journaliste sénégalais journaliste sénégalais yi ou bien les télévisions sénégalaises pas l'état hein pas mais les télévisions sénégalaises tey 7TV mais eh, dem leen dem leen dem leen Tenerife mbaa ngeen dem euh, Fuerteventura ou oubien ngeen dem Lanzarote ngeen dugg ci ngeen dugg ci dëkk bi dem ci sénégalais fi ñuy nekk ngeen def une semaine ngeen ngeen def ay reportage du waxtaan ak jeunes sénégalais yi nga xam ne ne ils sont déjà sur place boo yooyu expliquer leen li ñuy dund ngeen gis yéen ngeen gisal seen bopp booy yu yi ñuy nekk ci ay mbaar la ñuy fanaan ci ay suufu tunnel cest à ngeen jël jël même bu jëree comme les grandes télévisions françaises ce qu'ils font yéen war ngeen ko mën def jël se i caméra dem ngeen xool je t'assure gis nga loolu boo leen ko defee benn tele bu ko defee beneen tele def def def ko suba bu fekk ne dix xale mënoon na dem mën na mën na fexe ba peut-être trois yi ñu demati peut-être sept yi mën na mën gis nga ngay wax ci mbaar yi ak ci suufu tunnel yi am na ñoo xam ne moo leen gënal tëdd fii seen i kër waaw mais je suis tout à xam nga ñooñu mooy ñi nga xam ne moo fa nekk mais dama ne ñi nga xam ne demaguñu moom laa la wax. léegi ñi nga xam ne demaguñu bu ñu gisee ñële condition yi ñuy dund. dina leen justiciade. loolu nga yaakaar dañuy am du ñu am problème lekk du ñu am problème mu du ñu am problème mu naan. maintenant beneen bi mooy man je pense aussi que il faudrait qu'on organise euh, la politique de l'emploi. Mhm. parce que tey euh, man mënuma concevoir Sénégal mu nekk dëkk boo xam ne plus de cinq pour cent de la population à moins de vingt cinq à moins de vingt cinq ans. ñi nekk di rey suñu bopp ba léegi ci di importer daanaka quatre-vingt-dix pour cent la ñuy lekk ou bien beaucoup plus alors que ne tey booy bu ñu demee en Europe ci li ñuy rey seen bopp mooy lañuy liggéey ci tool yi mais àll bi mu ngi ne yemalang lan moo tax mënuñu créer ay zone franche à côté ñu def fa ay. ay ay ay ay ay ay ay industriels ay petites et moyennes entreprises créer l'industrialisation jël ay booy organiser leen ñu nekk en cinquantaine ou bien en centaine mais ñu jox leen des des dizaines et des dizaines et des dizaines d'hectares ba pare na leen état bi na leen soxlawu ma dara lu may def mooy dama leen di lebal machines yi dama leen di lebal euh, euh, euh, semence jox leen suuf jox leen lépp nga xam ne ba pare yéen foofu ngeen di dëkk ngeen liggéey. mais au préalable balaa ma lay jël il faut que ma forme leen. comme yaa ngi ci coalition. di féliciter nag par contre le président parce que gis naa benn projet bu le président di le président non le président Macky di nekk di technique mooy les centre de formation professionnelle man dama yàgg gëm na ne réew boo ko bëggee développer comme en Europe les Européens ce qu'ils ont fait mooy dëkk bi yëpp ay centres de formation professionnelle la. parce que xale yi tant que tey boo ko kuy bay tant que jàngaloo ko amul xam bay boo ko joxee ay milliards da koy yàq.